Salut les amis d'eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous like, merci de vous abonner, merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé gars, et chaque fois de partager une information. Mbokk Sénégalais, fépp fu leen 14 jours du Sénégal à wal nga këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ah. ñi nekk ci kase yi nga xam ne judiciaire ak ñi ñeneen ñi defu mën a fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi doo si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu actualité bi gars yi dañu waxtaane ci nga xam ne nag mooy donc retournement de situation hein. incroyable Thomas Tuchel viré Thomas Tuchel dañ ko mais également Tedesco entraîneur RB Leipzig également dañ ko dàq aussi du côté de Marseille nouveauté am na ci loolu yëpp nañ ci ñew taataan ko hein ba pare ko comme niñ ko wara a gaay ngeen am ci lu leer mais d'abord dañuy tambalé li nga xamné moy donc yéen kay bi suñu lamb avant goût du choc du 14 février 2023 Tafatim ak Bombardier ñom ku nekk dal yaangi ngi napp sa morom commencé nañ nag di waxanté ku nekk li nga xamné nga naral sa morom 12 victoires 9 défaites waalo dañ bañ na waalo dal actuellement ci loolu ñu nekk avec aussi le leader bi nga xam ne mooy donc Lac de guerre nga xam ne amagul

ci ñu ko bëgg euh, gis euh, choc inter euh, donc Bayern donc le Barça veut briller Barcelone mi nga xam ne également tamit ah moom ak Inter ak Barça ak Bayern ñoo bokk poule ñoom ñëpp bëgg wane seen Bob mais aussi Real Madrid démb sans que qui di Karim Benzema sorti sur blessure ñoom ñoo gagné ñetti bal ci dara ki ngeen gis également donc di Sue Bird donc nekk légende du basketball jël li nga xam ne cinq fois Jeux olympiques jël quatre coupes du monde jël également li nga quatre fois WNBA moom nag dafa jël retraite am la meneuse ah, donc donc est koo marqué le football qui gis ni Khadim formé au niveau de génération foot nekk ci Oroya FC selon les informations moom a fait la nationalité mauritanienne pour le football qui mourabitouni yi nag qui ah, ki nga xam ne mooy ah, Pape qui, euh, comme dirais-je actuellement beaucoup de ci joueurs yoo actuellement Amir Abdou dalen leen di euh, ciblé li ngeen gis résultat de yi Ligue des champions bien ah, donc Dinamo Zagreb Modoro, Chelsea Dortmund dóor Copenhague Benfica dóor Maccabi Haifa euh, Celtic Real Dorco. donc Stuttgart, Donetsk Leipzig Paris dóor Juventus Salzbourg également également moom Milan tamit temps hein, gis ngeen ni fa demee donc ki ngeen gis ni aussi di Karim Benzema Benzema gay actuellement nag blessure am dafa inquiété nit ñi parce que tamit blessure au genou la et que genou moom tamit yàgg na ko sonal gis ngeen Paul Pogba li ko indil moo gars yi fi mu ne ñu commencé di inquiété maintenant nag tey def analyse ak ay test ñu mais aussi xaar donc donc Inter de Milan Bayern de Munich Tottenham Marseille ak également Barcelone Plzen ñu Bruges ak Leverkusen Atlético Porto Napoli également de jouer. mom Liverpool qui gën gis ni aussi Dembélé néna mom Eric Garcia bientôt moom mooy nekk capitaine u FC Barcelone Eric Garcia mi nga xam nag tey ah, il a été formé du côté de la Masia jóge fa nag demoon benn moment ci fële ci Manchester City dellu si nag actuellement bokk ci cadre yi gars yi nag tey match Inter ak euh, ñii di Wa Bayern Munich ah, Inter seen bleu yi la sol comme ni ngeen ko xamee ndax ñoo recevoir waa Bayern Munich nag bu yu weex yi yu blanc yi la ñuy nar a sol gis ngeen aussi Manuel Neuer euh, tey euh, Mayo bi muy sol donc lii la ñu bëggoon wax mais aussi classement bi gis ngeen ko ah, donc par rapport ak équipe bu Bayern beeg ak bu Inter bi classement probable bi Sadio Mané mooy nekk ci kaw moom ak Gnabry Miller, Coman, Sabitzer, Kimmich, Hernandez, Davis, Neuer, De Pavar. Pavard, ñom ñoo rejouer euh, parce que Musiala donc incertain parce que blessure am bi donc wér mais ki dafa noonu day jël Nagelsmann dafa noonu day jël ay précaution Marseille nak tay lay ñëwaat mais Marseille nag moo battroon record défaite d'affilée yi en euh, C1 gis ngeen ko en ah, Ligue day ñi ñëpp ñoko ko dóor ji nii Marseille donc nekk loo xam nak lu exceptionnel lo donc ñom nak dañuy jéem rétablir pendant ce temps bonne nouvelle pour les Sénégalais donc kii di Ahmadou Bamba donc day réintégrer groupe professionnel bu Marseille après match contre Tottenham actuellement nak dafa nek ci phase de réathlétisation ñu koy souhaiter tamit bonne chance comme comme moom né na des Marseille ñaan même am temps de jeu Ahmadou Bamba pendant également plus de 6 ans à 8 ans, Lionel Messi gars yi remplacé. ko 63 matchs Moussou a génn dem Galtier mettre fin à ce record ba mu qui ki nga Lionel Messi en Ligue des Champions donc Lionel Messi que 63 matchs plus de 6 ans yoo xam remplacé. mauvaise nouvelle également pour le euh, les Blues de Chelsea mais également pour qui nga nommé euh, Koulibaly ak Edouard Ndiol comme Mauro Mendy mooy di Thomas Tuchol, dañ ko Dark, Denko, limogé donc voit Chelsea nag actuellement dirigeant yu bees yi gis résultat yi mu am ci championnat mais ak aussi Ligue des Champions champion bi donc actuellement Chelsea en difficulté Koulibaly donc euh, di Edouard Thiago Silva hein, ils sont en très grande difficulté la fin donc de l'aventure entre Thomas Tuchel ak Edouard Ndiol Mendy Edouard Mendy moom dafa nek sax ci pour parler discussion pour prolonger contrat am euh, mom nak dafa am salaire bo xam ne ko 190 quatre euh, livres sterling lañuy fay ki nga xam moy mooy Kepa donc mom nak dafa bëgg am lool par semaine mom donc lool la bëgg am wala boog lu ko jéggi ndax moy gardien titulaire nous nak ah, ki nga xamné moy Graham Potter lañ jàpp ne favori bi pour remplacer ki Thomas Tuchel à la tête donc des Blues de Chelsea lool nak nek ah, un surprise général ñepp gis Thomas Tuchel donc daxam bi même si c'est un peu justifié mais gars yi a nañ dina télé. ni mais également Mauricio Pochettino bi nga xamné depuis beaucoup Paris Saint-Germain dàqee ba amul club ni koy du côté de FC Séville mais aussi moom bokk na ci prétendant yo xamné tamit ah, Chelsea mi explorer piste pour dali recruter donc l'entraîneur argentin ancien entraîneur de Paris Saint-Germain et de Tottenham également du côté de RB Leipzig Domenico Tedesco aussi aussi moom it nañ ko ah ganna bi nga xam dafa tegle ñaari défaite ñaari quatre la jël ah, donc en championnat et aussi en Ligue des champions moom dakh nañ ko aussi donc du côté du RB Leipzig Leipzig dem nga xamné ah, dañ ko dóor ah dóor yu metti en 4 buts à 1 nek défaite bo xamné aussi nek première défaite aussi Abdou Diallo du côté du RB Leipzig ak ñom Babacar Ndiaye défaite de trop comme on peut l'appeler donc moo tax aussi Tedesco moom dakh dàq nañ ko ñom RB Leipzig aussi ñom ñi ngi jéem xol benen entraîneur bo xam mo ñew yor len gars donc c'était les informations que je voulais vous donner donc vous leen liker, like wooy leen abonner. toujours plaisir de vous servir nan c'est gisee ak ban analyse ngeen def ci dàqu Thomas Tuchel ak aussi dàqu entraîneur RB Leipzig ak aussi Bamba Dia réintégré du côté de Marseille on avance ensemble dans la machine de eSport TV su baaxee si yéen la su bonee ci ñun la gars yi jaa